asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci seen chaine bi muy Serigne Djily TV mbokk yi ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di baal xaq ñu ngi leen di baal xaq tey nag dañ leen indil taktam bu am solo xaj na sax mas nañ cee jaar waaye nag ak fàttale rek lay doon te léeg-léeg nit ki dana ko yittewoo lool ndax léeg-léeg mën ngaa dem fi barab euh, bëgg am waruwaay mu jafe la. lu mel noonu nag ñaare day doon ku nekk ci ñun wala sax ci biir dëkk bi sax léeg-léeg lu mel ni oto oto bu la yóbbu jafe la lool tegtal bii ma lay bëgg a jox nag lu ci am solo la te boo ko defee rek gis ko incha allah amul luñ ciy nattable muy baatu firawna bu ñu waxee baatu na nag ñu bari loolu dina leen jaaxal waaye du ci jëmmi firawna ngay def tawassul waaye jëmmi alxuraan la ci boppam ndax xam nga alxuraan baat yi ñu tudd iblis sax mi ngi ci firawna mi ngi ci ay yéefar mi ngi ci waaye ginnaaw ñëw na ci alxuraan rek fii ne boo boo fekkoon ñu sànni ko ci suuf danga war a wormaal alxuraan for ko kon du jëmmi firawna ngay wormaal waaye jëmmi alxuraan ji ci boppam ngay wormaal ndax tudd gi ko suñ boroom tudd rek kon nga xame ko si euh, baatin la euh, su ko defee nag euh, boo taxawee boo nekkee fi barab moo xam ci àll la moo xam ci kaw tëddi la oto jafe la lool dangay for aw xeer xeer bu ndaw rek bu ko defee nga jàng ci firawna juróom-ñeenti yoon bu ko defee nga jàng ci na juróom-ñeenti yoon mooy neuf fois bu ko defee nga sànne ko ci tëri bi bala ngaa toog lu mat juróomi minute wala juróom benn minute di nga gis oto bu la yóbbu moo xam day ñëw fayiku la moo xam day ñëw yóbbaale la ba fekkoon na ci digg àll bi it da nga am warwaay wala yóbbu moo xam sareet lay doon wala oto wala lu mën a doon daal ala kulli xaalin da nga am ndimbal loolu nag du ci firawna waaye ci barke ba alxuraan lay doon nga xame noonu bu mu jaaxal kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey jii ci muy loo xam ne lu am solo la lu mat bàyyi xel la lu mat a mokkal la ndax yu mel noonu léeg-léeg mën ngay dem fi barab mu mu mu mu dikkal la dama fi maanaam léeg-léeg nga am lu nu bëgg ñibbi am lu nu yóbbu jafe la lool bu ko defee boo ko defee ci bu dee ci kaw tëli wala moo xam ci kaw yoon rek moo jàngee loolu mën a wax sànni ko ci kaw yoon wi rek yàlla dana ko yombal incha allah kon ma lay fàttali nag nga yooyu di abonné ci chaîne bi ak di ko tasaare ndax bokk na ci li koy dundal bokk na ci li koy yëkkati wasalaamaaleykum wa rahmatullahi